lii la ci di sama yàq li ma koy waxee saa su ne man su ma teewee ci seen jotaay du ma sawar a wax ndax li ñu war a wax xam nañ ko ci liñ koy wax ñu gën a rafet sëñ Cheikh Ndiaye jërëjëf kàddu yi rafet na imam Dramé Cheikh Bara Ndiaye Cheikh Bara Ndiaye moom jàmbaar la ñëpp jàmbaar lañu waaye moom dama koy garal loxo ndax taxawaayam ak wane gi mu wane gi am nga communication baax na waaye jëf communiquer jëf moo gën a fës dañuy wax saa su ne ni mbir alxuraan njàng mi mi alxuraan leer bi alxuraan baax bi alxuraan loolu wax la waaye bu ñu gisee koo xam ni ñi nekk ay ay am nay jamono ñi fi nekk ay chroniqueur daanaka ay moromi Senghor lañu doon dañ daan agrégé en français moom Babacar Justin Ndiaye ñu ngi la woon kenn ñëwul taxaw da ngay da ngay da ngay def da ngay nekk chroniqueur di analyser di def analyse politique moom mu jógee ca daara ja xam nga lu mu fa bàyyi xaaral ma maa boobu ak yéen des na axsana husna wa ziyaada ak yusikum allahu fi awlaadikum li zakari mithlu hazzil unsayayni loolu lu jàngam bindu kaamil man ca góorgóorlu ca yaru ca yarwaan ñëw nag xelam alxuraan leeral alxuraan jooju yóbbu ko ci tey muy chroniqueur numéro un kon ñun benn benn waa daara mën nañoo bàq bàq bàq ko ci moom Cheikh Bara jërëjëf jërëjëf ci taxawaay bi euh, man sama kàddu loolu moo tax du gudd ndax ñoom ñi jiitu Serigne Cheikh Niass Serigne Dramé Serigne Niass ak kàddu yu rafet yi ak ñi wax jiitu ñi ñëpp dañoo yóbbaale suñu kàddu li xew tey daana xew ci histoire waaye ay mag ay mag waxuma mag ci ab waaye mag ci grandeur ñoo daan xewal dafa am xare bu ñuy wax Yarmouk ci xare yi gën a metti ci lislaam am général bu ñuy wax Xaalid na ko asadullah gaynde yàlla gi ndax ndexta bu mu amoon ak njàmbaar mu amoon Seydina Aboubacar fal ko général bi Omar ñëwee wëyale ko muy xare di gañe projet l'islam bi ni loolu ngañaay yooyu moo tax ñu bokk ci jullit ñi xëy Xaalid ibn Walid jiite ko fu ñuy wax Yarmuk ñu dem ba yàgg Omar ni day folle Xaalid ibn Walid fal ku ñuy wax Abu Ubaydata Amir ibn Jarrah bindub leetar jox ko jox ko Abu Ubayda ni ko boo demee na nga ko jàng ca mbooloo ma na Xaalid nekk benn soldaar ci sa biiru soldaar ka nga jiite xare ba di Abu Ubayda dikkee fekk xare bi tàng lool nit ñépp seen xel wékku ci Xaalid nga xam ne buñ ko folli woon ca mbooloo ma rek ba daal maanaam mu ñu perdre mu ñëw nëbb leetar ba moom mi ñu fay général mu nëbb leetar ba ànd ak Xaalid ibnul Walid xare ba ñu gañe ba noppi nag mu ne ko désormais nekkatoo général man maay général loolu ay saxaaba ñoo ko dund yu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaa xam nga loolu ñuy firi tey ñi am grandeur nit ñi yàlla defar nit ñi yàlla baaxal ñu mel ni président Ousmane Sonko dañuy xalaat projet bi ñu yor lu njëkk li ñuy xalaat seen jëmm ñaar ñii kii yàq yàkkamtee nekk général bu jiitaloon boppam bu ñëwee ni maay général xale bi day yàqu dañ leen di gañ parce que werante day am Pastef ñi ci nekk man léegi sax amatuma envie wax Pastef damay wax le peuple sénégalais le peuple sénégalais dañu am yaakaar am leader yoo xam ni seen problème nekkul naa nekk président par force seen problème mooy nañu xettile xeet wii nañ leen sauver misère bii fi nekk nañ ko fi jëlee liñ ko fi jëlee mooy projet bii ñu teg projet bii ñu teg nag diwa ñu ci doy muy président Ousmane Sonko diwa ñu ci doy ñoom ñëpp d'accord ci su gàllankoor amee gàllankoor ba bu mu bu bu mu tee projet bi jàll yàlla bu gàllankoor bi am kenn foofu. ndax jàpp nañ ni président Ousmane Sonko da jàll waaye nag li ñuy defal Bassirou Diomaye Faye li jëmm Bassirou Diomaye Faye lañ koy defal adhésion bi ñu def ci projet bi adhésion boobu la peuple bi di wane te gis nañ ko ñun kon benn fait historique boobu xew ci suñu lisam beneen bi fii la xewee ci Sénégal waa Fuuta nguur diine almaani Thierno jóge Pire ànd ak ñam jógee jógeendoo def seen congrès dem taal seen jihaar ni dañuy song ña nga xam ne dañ doon nag nit ña ay colonisateur lañu woon parce que dañ doon coaliser ak waa Trarza ak Brakna di joxe li ñuy mu muddu xaw ma di forcer nit ñi di leen def ci jàmm Souleymane Baal ni da leen di libérer parce que donga daara bu jógee ca daara yaroo fa mënta nangu injustice bu ko nangoo rek jàngul alxuraan wala gëmul alxuraan dem jàng alxuraan xam nga lu fi nekk amul benn buur bu dul yàlla alxuraan la fa nekk mooy yàlla moom moom nguur moo koy jox ku ko ne alxuraan la fa nekk mooy ku bon ku ne bokkoo ci yàlla alxuraan loolu la fa nekk Cerno Souleymane Baal ànd ak ay mbokkam di xare xare boobu constitution la may wax foofu mooy fait bi am tey ci politique ci Pastef ni mu kawee ci histoire li président Ousmane Sonko ko def ni mu rëy ci histoire ñu indi ko jeex ko ci suñu démb ñu Thierno Souleymane Baal ñu jam ko ci xare ba mu yaakaar ne xaj na du dund mu génne ci ay bagaasam première constitution bi l'humanité njëkk xam jiitoo na nangami woor weer la Amérique def jiitoo na at la France def tey ñu koy tiitaroo di ko tuddee la déclaration de droit de l'homme et de citoyenneté li Thierno Souleymane Baal suñu maam ñun sëriñ daara yi la mu génne woon muy constitution moo ko moo ko jiitu moo ko gën a avancé mu ni man su ma deewee tam bu projet bi su ma deewee ma xam ne yàlla moo jël sama bakkan ci li ko neex waaye projet bi moom bu mu dee génn këy daal di ni ki na a nekk ki na ki ma nar a donn ci na nar a nekk président de la république du sama doom du sama xarit du ku ma xam waaye na nekk ku mel nii na nekk ku jub na nekk ku mësta lekk alal jungu moomu koo xam ni dundam yépp dafa liggéey dunde na nekk borom xam-xam bu xam àddina xam sharia xam àddina na nekk ku ay bokkam bëgg mu jubóog ñoom joxe ay condition bi ñu jëlee ba mu mat ñaar fukki condition ak ñeent bi ñu jële condition yi mu faatu ñu xool ko dañoo gis ni ku ñuy wax almaami Abdul Qadir Kane dong moo ko mën a matal ñu dem jëli Abdul Xaadir Kan jafe na kilifa diine bu nekk Sénégal bu set ci moom nekku sa maam wala bokk leen dara wala mu jàngal sa maam wala yu mel noonu ñu dem jëli ñooñu tam ci biir Sénégal gii suñuy maam ñu xamal ñu ni projet libéré Fuuta libéré ay gor yu ñu moomoon te waruñu leen not dakk ay colonisateur développé am réew moo gën a nekk farata nekk di xëccoo diwee falu wala diwee falu ba loolu la ñu mujjee def la révolution de de Torodé ñun ñëpp jàng nañ ko tey jii suñu maamaat yi ñëw yëpp fa lañ jëlee l'islam fa lañ jëlee lépp li tax ma koy ma koy évoqué parce que ay tolluwaay la ci histoire yu ñuy wan nit ñu mag ñi ñuy tiitaroo de projet yi ñu yoroon moo leen gënaloon moo leen gënaloon seen jëmm ya rêve nekk président de la république loolu mës sa nekk rêve président Ousmane Sonko mm-hmm. mës nekk rêve ñun ñuy waxtaan ak moom Cheikh Bara mën na koo wax man na koo seede man may waxtaan ak moom ak ñeneen ñun ñii la waxtaan ak moom xam nañ ni problème am du nekk lii wala nekk la problème am mooy ñu sauver sénégalais yu sonn yi problème am mooy ñu libérer Sénégal yi nekk ay gor problème am mooy ñi ñu xañoon ñu dugal leen boole leen te bokk loolu mooy kon lii dañ koy saluer defe naa ne ñi doon sikki sàkk grandeur Pastef ak fu mu toll tey jii xam nañu fan la ñu toll fan la Ousmane Sonko toll ñi mu àndal fan lañ toll li ci des nag mooy kàddu gi may mujjee euh, sama rakk yi jiitu junj nañ ko ñun ñaaxuñu dañuy sant lu tax ñaaxuñu parce que xam nañu ni parrainage bi ni mu umbee suñu sëñ daara yi ba bi may toog si ci jataay bi ka may woo nekk Touba dane ma maa ngi terrain sëñ daara yi boo dem 46 département boo séenee ku solo sabaloo yor caayam bàyyi caayam comme ni leen sëñ bi di tudd nga bi këy di lëbër lëbër rek moom am sëñ daara la pare te ñun ñi te ñoom ñu ngi ci ñun ñu ci 45 département yi ba nar fee indi njàmbaar goo xam ni mësta am Sénégal ñoom ñu ngi liggéey njàmbaar boo xam ni kon bu ma taxawee naan leen dama leen di ñaax ci banque kii bi dama leen parce que ku nekk ci terrain bi di xare bu ko ñaax na nga ko jaajëfal ñu ngi leen di jaajëfal bu baax yëg nañu seen taxawaay kon dañoo naroon def conférence de presse doon ko waaj pour wax leen nañ ca sóobu far ñu xool bi ñu analyser sóobu nañ ca ba ëpp nañ foogoon sóobu nañ ca ba ëpp nañ foogoon baneen bi ñuy mujjee te Cheikh Bara junj na ko dañoo bëgg président bay dem palais tey jógee Pastef bi idnillahi mu nekk président Ousmane Sonko dañoo bëgg dañoo bëgg président boobee xaalis ba nga xam ni mooy suuxat candidature am muy trente millions ya dañoo bëgg ñun doomi daara yi ñu joxe ko danaa joxe nag benn anecdote pour wax la loolu may alxaaji Abdul Aziz Sy Dabakh radiyallahu taala anhu dañoo nekk ay taalibe di yelwaan Thiès mu ñëw ab taalibeem nekk fa ganam ca Thiès nekk ganam ab taalibeem ca Thiès bi ñu ñëwee ñu nekk taalibe yor ay pot def ci yelwaan cere ceeb dëxin maaf lépp ñu jaxase ko ci pot yi ku nekk ngàmb ko moom taalibe ba mu ñëwoon gane ko ca Thiès defaral na ko ay mission ay ginaar lu nekk ren na ñu teraanga moom ñoom ànd na ñu ñëw taxaw ci bunt bi même benn benn góor bëgg ñoo daan ñu ne leen bàyyi leen xale yooyu ñu dugg si taalibe bi ñu duggee ñëw ba ci mu ne nañ ko jox benn bool bool bu mag ñu jox ko benn bool mu jël suñu yalwaan yi nii dana damaa bëgg a reccoog yéen seen yalwaan yi barke na caa ne shifaa u la day faj te barke la dama koo bëgg dama dama dama bëgg weccoog yéen sama mis yi ñu ma defal ak teraanga yii damaa bëgg ngeen duy ci seen wat yi ba pare te jox ma li nekk ci seen ñu jël yalwaan bi def ko ci bool ba muy avant ñuy dem ñu ngi koy seen ni coppati léegi ñun ñëpp ñu song mis bi nga xam ne daal di dégg mis bi moom song mis bi yaa ngi yëpp duy ci suñuy bët ba mu fees mu ne leen mu ne kaay leen di ñëw mu ne lekk leen ba suur bala ngeen a duy seen bët xam nga boo suuree nag yóbbu ca lay gën a yomb ca lay àggee te daal ñu toog lekk lekk ba suur gan ya fa ñëwoon nga xam ne ay taalibe yu ziar mu ne nañ barkeelu ci des bi ñuy jàng dégg dégg nañu wërsëgu donga daara nga xam ne ci alxuraan la ko jëlee loolu lañ bëgg mu nekk laltaay nekk fondement ci développement Sénégal loolu lañ bëgg kon nag loolu nañ ñu ko may décidé wuñ ci rek dañ koy ñaan waaye buñ ci àggee rek incha allah danañ ci communiquer nit ñi xam nan la ko sëriñ daara yi fas yéene maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp waxtu yi dafa jeex di leen jégalu di gërëm borom kër gi gërëm euh, madame Ndiaye monsieur Ndiaye papa Ndiaye.